dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu lu garaaw a garaaw moo xew ni ki démb ca tribunalum ndakaaru lu yéeme la ñu fa doon atte ndax dafa am benn mécanicien boo xam ne musa Fall la tudd benn jigéen moo ko jëloon ngir mu di ko dawala la jigéen bi ba mu demee ba mu yàgg mu daal di koy dàq musa Fall moomee di mécanicien dàq gi ñu ko dàq mu daal di koy naqar yi ba jégg dayo mu bàyyi ba ndaw si gaare oto bi mu dem dagg frein yi ndaw si bi mu xëyee war ci oto bi dem na ba nar a bi mu demee ba nar a accidenté la xool nag ñu ne ko yow say frein dañu ko dagg ndaw si nag nag porte plainte contre x gars bi ñu defee ab enquête ci la xam ne Moussa Fall mécanicien moo def googale njombe tëj nañ ko lu toll si juróom-benn weeri kasu ñett yi lay tëdd waaye nag daan nañu koy alamaan la dëkk yéen a kaay gi xëy diñu xibaara naan lan moo tax France mere ñi nga xam ne ñooy waa Mali loole la journal bi xëy di ko leeral nee takki deer russe yi nga xam ne ñoo nekk Mali loolee bokk na ci li tax France daal yooyee ndax juge bi di Abdoulaye Assane Thioune mi nekkoon deuxième cabinet jëlee nañ ko fa léegi juge du siège la maanaam day atte Mamadou Seck mi nga xam ne moo nekkoon troisième cabinet moom jëlee nañ ko fa yóbbu nañ ko deuxième cabinet Thioune mi nekkoon deuxième cabinet ñu jël ko yóbbu ko juge du siège ana lan moo ko waral mbaadu ay sanction ci ni mu doxalee ci cas Boubacar Biaye yéene kaay gi de las xëy dañu xibaar naan ñu Barthélémy Dias yekk na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Banda Diop maire bu Patte na amul lenn loo xam ne Banda Diop def na ko fi lu dul jël bi jaay ko Macky Sall amul benn bilan yéenekaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Mame Mbaye Niang mi nga xam ne mooy candidat Sénégal 2035 ci ville bu Ndakaaru daat nay dal bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñooy ay concurrent ma nee na candidat bii nga xam ne mooy candidat Yewwi Askan Wi ci diiwaanu Ndakaaru bala muy wax ci lu jëm ci wàllum programme dafa war a wax ci bilan bi nga xam ne am na ko ba pare te candidat la boo xam ne dafa bëgg a ngir na xeexee ko nguura bu dee nag yeneen candidat yi ci benn bokk yaakaar ñoom li leen yitteel jamono ji mooy conforter seeni position ci biir bi moom Mame ci biir journal bi di Vox Populi bëgg liggéey ndakaaru ba ndakaaru ne boy ndax dafa am loo xam ne war na koo def ci ndakaaru daat nay wax ne programme bii nga xam ne moom la yore programme la boo xam ne bu mucc ayib la ndax lu toll si ñaari at yoo xam ne toog na di ko liggéey ci boobale programme nee na programme am boobe nag naam am na ñenn ñoo xam ne dañu koo jël copie collé ko daal koy ngar dajoo wax na ci chance yi nga xam ne amee na ko ngir gagné ville bu ndakaaru wax na tamit ne jamono ji ñi nga xam ne ñooy yenn candidat yi am nañu mbetteel lool ci moom ndax moom Mame Mbaye Niang ci journal bi nee na jamono ji fu mu jaar gaay yëpp daal di dagg topp ko bu baax baax daa di gagné ci journal bi tamit félicité na bu baax baax ki nga xam ne mooy Amadou Ba mi ko seetal ba mu seet wecci ci lu jëm ci vingt yu Prodac yi Mame Mbaye Niang ne ñëpp xam ne vingt yu Prodac yi lépp ay caaxaan la ak bëgg maa yàq waaye nag loolee mënuñu ko nañu dem toogi wax na en li nga xam ne moom la namu ci Ndakaaru te jamono ji jàpp na ne dafay gagné keneen koo xam ne jàpp na ne day gagné élection yi ci diiwaanu Ndakaaru mooy journal bii di Vox Populi nee na Pape Diop ma nga woon ca diwaanu Wakam waaye nag foofee bi mu ñëwee nag mbooloo mi yëpp ñoo génn daal di dagg topp ko bëri na ay responsable yu mag a mag yoo xam ne daat nañu koy fekk si moom Pape Diop ku ci mel ni ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon nekk ci PDS ak waa PIT ak ñu bëri ñoo xamante ne ci parti au pouvoir la ñu nekk yéen kaay gi du dëgg gi kay mooy Pape Diop a ki démb ca Wakam tapis rouge la ñu ko lalaloon ndax mbooloo mu bëri ñoo dagg daal di koy topp yéen kaay gi di l'info xëy di ñu xibaar naan ji am ndax ci diwaanu Louga pëccëxoo na ca diwaanu Saint-Louis ca diwaanu Kolda sa diwaanu Ziguinchor ci Ndakaaru ca Mbuur ca Mbàkke ca Kaolack fii fépp foo fi xool ci benn Bokk Yaakaar tasaaroo dëggantaan moo fa ama enquête yéen a kaay nee na élection locale yi lu jëm ci wàllum mystique wàllum xarxa fuux bëri na ci ndax bëri na ay candidat yoo xam ne dañuy dem solliciter ñi nga xam ne ñooy jinne yi Laas Badiane ci journal bi nee na am na benn nijaayam boo xam ne bi ñu ko investir ci yeewu askan wi boobu ba léegi dafa daal di paralysé yéen a gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection locale yi ñi nga xam ne ñooy loué ay chaise ay baas jamono ji ñoom waxatuñ dara seeni mbir ma ngi dox yéen a gi nee na cadre unitaire de l'islam jamono ji seeni mbir daan nañu koy jëmale gars yi ñoo ngi signé journal bi nee na Soham Wardini daat nay li nga xam ne mooy charte non violence yéen a kaay gi de la quotidien ñu xëy fekk fa archevêque bu ndakaaru moom daat nay woote li nga xam ne moo jëm ci wàllum jàmm ci élection yi laas yéen a kaay nee na Abdoulaye Diouf Sarr wax na ci charte non violence bi nee na nag charte bi ñi nga xam ne ñoo ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne ñooy def violence ndax nee na ñoom waa benn bokk yaakaar musuñoo yëngutu ci lu jëm ci wàllum violence Vox Populi neena na cadre unitaire de l'islam lu toll ci juróomi engagement la ñu tegal ñi nga xam ne ñooy way politique yi yéen a kaay gii di ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko moom nag daal nay sulli ay mbóot yu doy waar a doy waar ca diiwaanu Ziguinchor nee na responsable benn bokk yaakaar yi dañoo bëggoon a def ay njuuj njaaj bëgg dugal ay carte d'électeur lu toll si junni ak juróomi carte la ñu bëggoon a dugal ci biir Ziguinchor waaye nag nee leer ne sàcc élection yi ñoom mënuñu ko def fii nga xam ne mooy Ziguinchor journal bi nee na ak préfet moom la Ousmane Sonko wax ne ñoo gàntal dakkal li nga xam ne mooy fraude bi benn bokk yaakaar bëggoon a amal sa diwaanu Ziguinchor yéenekaay gi di mandat xëy duñu xibaar naan ñu campagne bi tax na ministre yi ak directeurs généraux yi jamono ji génn nañ seeni bureau dem campagne yi journal bii di Le Quotidien nee na Synpics si ndëpp la doon def waaye nag mbir mi dafa mel ni dese sotte ndax patron de presse yi ñëwuñu woon yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na ci benn at seen contrat waaye ñoom d'accorduñu ci nañu leen a mbëggeel dëggantaan lañu am ci mbir mi yéen a gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu Sénégal ak Guinée Conakry tey jii la Aliou Cissé nee na dafa déséquilibré ndax absence yi journal bi ñu xëy fekk fa Kaba Diawara mi nga xam ne mooy entraîné Guinée Conakry daan nay wax ne match bi nag njort na ne ci fair play la ñu koy amalee yéen a gi di record xëy dañu xibaar naan ñu Sénégal dafa war a gagné ngir nag dem ci huitième de finale yi journal bi di sunu làmb nee na combat Modou Lô ak Ama Baldé ndax mën nañu ko amal ci arène nationale bi